jamono ji liggéey bi di massage moom nag bari na ñu leen di jam baaraam tuuma soxna si di Amy moom muy xamle ni massage liggéey la comme yeneen liggéey yi waaye jigéen ñi nga xam ni ñoom ñoo koy def ñoom dañu war a respecter seen bopp ba noppi daal di respecter liggéey bi ñuy def. doy na waar trop salon yi moom léegi doy na waar waaye nag salon massage du du lu bon man gisewuma ko lu bon parce que nit liggéey loolu looy liggéey rek da ko war a jàpp. ci li ma gis parce que ñun ñi dañuy liggéey ay magum jëmm lañ di liggéey waaye liggéey sooy liggéey danga nga am sa fulla ak sa da ndax man mii sama rakk bu jigéen dafa yor salon mais yorul salon de massage sa coiffeur la yor mais day liggéey léegi nag xale xale yi am leen seen jomm bopp liggéey liggéey benn bonul mais la nit moo koy may boppam nañ liggéey te bàyyi caaxaan xam nga ni li indi li dëkk bi tas nii démb Eh, kuy foo rek moo ko indi li soo demee liggéey liggéey wàcc dem sa kër ndey sa kër baay doo am problème mais soo buggee dem liggéey dem def fa caaxaan lim mooy indi tas dëkk bi nii nañu góorgóorlu xale yi nañu góorgóorlu yeewu xale yi Sénégal nañu yeewu bàyyi xaalis waaw surtout parce que lii xaalis ko fi indi bëgg xaalis rek moo tax lii am tey nit ki def na la yoo defu la yoo kenn xamul yàlla rek moo xam mais nañu góor góorlu xale yi Sénégal góorlu leen li jàcce la. gàcc la ci jigéen ñun jigéen ñi bàyyi nañ suñu bopp te jigéen valeur jigéen rek macha allah fi mu yegg kenn xamul parce que ñun ñoo war a defar dëkk bi ñun ñoo ko mun a yàq ñun ñoo ko mun a defar nañ ko defar ñun jigéen ñi maa ngi ñaax xale Sénégal nañ yeewu lii dara jaru ko ci àddina nañ liggéey. te bàyyi bu ñu sukkandikoo ci paa bi di wuyoo ci turu fàllu Ndiaye ak ki nga xamante ni dafay bañ a ñu wane kanamam te muy wuyoo ci turu Mamadou seen massage liggéey la boo xamante ni dafa sensible lool te it góor ak jigéen nekk ci ab salle ñuy def ay massage loolee seytaane mën na cee làqu ba tax na sax ñuy proposer ay solution yu ci mel ni góor moroomu góoram di ko maase waaye itamit jigéen moroomu jigéen di ko maase lii moo ci seenub kàddu. li ci gën daal mooy góor dem góor mu faj ko dem ci jigéen mu faj ko ndax jigéen ak góor ak jigéen moom lu leen jax sax day yomb ndax say saytaane la mu ngi mboob ak sawara rek ñaari fii li courant moom fuñ fuñ jaxasoo maas da cee yomb ba tax na bu góor gi mën a am fu fu mën a ci góor moo gën góor jigéen ji mën a am jigéen ji mën a faj moo gën ndax lislaam moom du juum te loolu la wax góor ak jigéen moom nañ daan bu ñu wéet nañ daandante waaw wala wala fu nekk na fa mbooloo nekk waaw waaye nag góor ak jigéen wéet dong moom seytaane moom moo leen di wetti bi kooku moom nag allah kulli an looloy am seytaane moom fu ñaare góor ak jigéen nag ne mu ñetteel leen. man day vraiment day bu nekkoon ne bu jëkk li bu amoon bu jëkk amul problème mais jamono gi léegi moom dafa xaw a doy war parce que jigéen ñi moom nag normalement de fois li ñuy def góor baaxul te jigéen jigéen lay doon góor góor lay doon. mais bu nekkee nag boo wéeteeg jigéen rek mu takkal lay pot ah wóoteeg jigéen moom musiba la wóoteeg jigéen moom musiba la xam naa daal comme ni ma ko waxee léegi dugg ci Njaay daal moo gën wéet ak jigéen moom massage daal góor ak góor dañuy maasante jigéen ak jigéen di maasante bu ko defee daal jàmm ñooy kenn du wax sa morom dara ak benn accusement du ci am leneen du ci am. comme salon moom salon ku nekkoon salon jigéen ak jigéen ñooy defarante kon itam war nañu wut ay pexe yoo xam ne ak matuwaay yoo xam ne. góor a góor di maa jigéen ak jigéen di maa ànd ak lu ci mënta am massage moom liggéey la comme yeneen liggéey yi waaye ñi nga xamante ni ñoom ñoo àddu ñu ngi ñaan jigéen ñi yëngu ci métier bi ñu daal di ànd ak xarañteef bu baax waaye tamit ñu daal di xoolaat bu baax a baax fi nga xamante ni moo di millier bi.